waaw yàgg nañoo ànd liggéey bu am solo bi ñu ko doon ubbi tey yan kàddu rek nañ waaw waaw bis waaw bisimilah alhamdulilah wasalaatu ala rasulillah wala ali bi sal xadim woon waaw kon na xam naa damay wax rek sama mbégte ci teew gi ñu teew ak ànd gi ñu ànd ak mu Khidma euh, muy muy muy AAM muy association de sécurité la Mouridiyya muy muy jameerul kutaaw al muridin ndax euh, bi ñëwee si mu taxaa di ko di ko wax dama dama ne ko ne dañoo bëggoon turu gën a murite mu ne nu ngeen koy waxee ñu ne ma ne ko kii jameetu table yi muridin al muridin mu ne ah loolu baax na waaw waaw kon nag loolu la mooy xam naa mooy loolu mooy AAM waaw waaw association de sécurité de la mouridiyya kon nag ñu am mbégte bu baax ah bi ñu bi ñu booleeg euh, Moukhaddamatoul Khidma tey wax dëgg yàlla ñu ànd ñu ànd bu rafet ñu am mbégte tey tey itam moo tax ñu ñëwoon teewoon fii ci bis bi ànd koog ñoom muy bis bu màgg bu ñu tuddee suñu màgg suñu maam suñu Mbàkke Buso waaye nag doon ubbitil tam ci am maarit bi mu fiy def waaw muy exposition yoo xam ne dañ ci exposition gis nañ gis nañ exposition mu am solo loolu moom itam waaw waaw ak waaw waaw doole ci nag euh, nga xam ne ñu ngi koy bind bi ak ci waa kër sëriñ bi ak ci yoon wi di ko exposé moom itam muy lu am solo kon daal ngeen xam xam ne am nañ mbégte bu baax ci teew gi ñu teew fi ak ànd gi ñu ànd ak yéen liggéey bi waaw waaw waaw waaw salaatu lazi fi kull lisaarin wa fi safar amaani ala maahin maal habsa wa safar